ودار يا الله صلي بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيء ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم رمان متديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي رحمتي ألا ألا يدر أن منك يا الله مليم يميني وقل ne ba ma ñëwee ne sama papa daf maa jàngaloon ni ma bala ngaa dem fenn ne na nga dem ziyaare ji Tuuba ne ziyaare xalifa ba fa nekk nee loolu nag sama papa ma ko jàngal de nee mu wax ma ni ma nee Abdoulaye munu ko naa munu ko munu ma laa def président de la république de waaye nag danaa la teg ci yoon woo xam ne boo ko wàcculee di nga nekk président de la république nee yaakaar naa ne nag loolu am na nee looloo tax nee am nañu ñu bari li nu am xamuñu fu ko jële waaye man Ablaye mii toog li ma am xam naa fi ma ko jële de nee xam naa ne lii ma yàlla jox sëñ Bamba rek laa ko jële nee moo taxit nee musuma am benn njàqare nee xalif yi fi jaar yépp nee samay sëriñ lañu waaye samay xarit lañu nee samay sëriñ lañu waaye samay xarit lañu nee ñi fi jaar ñëpp nee ba tey ji nee sëriñ Muntaxa mii toog nee sëriñ Muntaxa nee ba mu daataan a nekk xalif nee dama ko daan ziyaara di toog ak moom nii nee mu woon may cofee gi ma bëggee nee ba ñëpp it xam ko nee kon sama ñëw fii tey nee warta jaaxal kenn nee dafa nekk nag lu ma war a def nee muy sama waru nee mu nekk it sama intérêt nee xam naa ni tànk maa ngi ñëw fii nee maam Cheikh Ahmad Bamba dina ma protéger. ne dina ma dimbali ci lépp lu ma bëgg ne fii ma toll nag ne fa tabaarakala fii ma toll ma dem yàlla dogal ba ma dem ci niveau bi tiim ñépp ne bu ma yeggee ba foofu ne di président de la république ne mënatuma am ci zahir nee lu ko féete kaw nee man kay léegi tollatuma fu may demee ci benn sëriñ ka naan ko ñaanal ma ma den président de la bi nee ndax yàlla defal na ma ko ba pare nee kon kay man Abdoulaye su may ñaan leneen lay ñaan nee wax naa ni nee bëgg naa bu kenn damm bant nee bëgg naa bu mu am benn xeex ne bëgg naa bu mu am benn violence ne loolu wax naa ko ca ndakaaru démb ne ak li namm ne li ma teeru fii ci nit ne man de musuma koo gis ne teeru nañ ma ba tàyyi waaye musuma koo gis ne xam naa ne ñooñu ne du Ablaye Wade rek leen fendi de ne dafa am lu ko jiitu ne mooy maam Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ñaan gi ak barkeeb ne ak fa tabaarakallaa ak waajur yi fi jiitu woon ak sëñ Muntaxa mii toog ak sëñ Muntaxa mii toog ne man damay faral di wax buy bis bu nekk di ko répété naan li ma am xam naa fi ma ko jële ne lii nag jeexal naa ci ne président dafa wax ne dafa am soxlay boppam ne bëgg naa nag fa tabaarakallaa ñaan sëriñ bi ngir ma gisante ak moom ne te kenn du ci bokk te mu dee jàll Cheikh Sidi Makhtar di ñaan sunu borom subhaanahu wa yàlla yokk ay leeram Mbàkke